yow su ma paree laa lay tontu ngir yàlla ak yonent bi restaurant yi nan ko tëj restaurant yi nan ko tëj ba digg jamono ni bitim réew ñëpp def quinze jours quinze jours ñëpp quinze jours quarantaine quinze après ngeen doog a tàmbali njaayum akara mi njaayum beñe mi njaayum borosé bi banta yaa nag moo gën a salte waaw ah, bant ya foofu bu ma duggee sama yaram day daw sama bi ne sama suba sama anniversaire dem naa fa man ak sama rakk bi ak ñaari xaritam ñaama kaay ñu feete ko fii commencement anniversaire di ko filmer ku dugg sama facebook di nga ko gis ba déggee bant dañu ma doo lekk ma leen baax na lu tax ma leen fi dafa salte salte ga nekk bant yi naa moo mu xamee ku ci état bi jógulee musiba guy am fa lay tàmbali coronavirus moom maam ja mu nga ca bant ya maam ja mu nga ca bant toog nañ ci jug dëgg neexul dëgg du musa neex nanu jug ci bant yi yéen ñi dem Sénégal yéen ñi dëkk Sénégal dem bant ya xam ngeen li may wax bu baax bërëb bu salte la bërëb bu niin la bërëb bu tilim la bërëb bu bëri muus la dañ lay jaay jël seen loxo fomp ki seen tubéy defal la kafeeg meew seen loxo takk ñu fomp ki seen tubéy te buñ fa mbikk ma ji bu lay jaay mburu loxo bi lañ koy jëlee maa fa dem le cinq ci guddi avant sama anniversaire maa dem bant ya toog fa xool ba ñu ne ma lekk dama lekkuma kumbis faramaara jëpp du ma bàyyi ma fen lu tax ma ne ko ñi dañoo salte dama leen a seexlu ngeen kenn du ko wax tilim ga nekk bant yi ëpp na tilim gi nekk ci restaurant yi ëpp na tilim gi nekk ci jaaykat yi buntu kër yi ëpp na ku nekk ngi jaay kenn bañul ngeen jaay kenn bañul ngeen jaay mais na ànd akum cet coronavirus gul salte te boo saltee rek yaa ngi koy may doole njaay mi njaayum beñe yi hmm? bant yi ay genre brochette la yoo xam dañ koy tàpp-tàpp mu nga mu nga mu nga Sàndaga la nekk xoomal la nekk man xam nga Dakar miinu ma fa ndax kaw kaw laa fa lañ nekk ay nigérien lañu ñoo koy jaay mais boo toogee ke taaba ke sa yaram dafay daw te xool ay boos ñoo fay nekk di ko lekk xam naa nag li lekk bi spécial moo tax nit ñi dem di ko lekk lu leer laa leen di wax li may wax ñu bëri xam nañ ko lekk bi lu mu spécial moo tax ay boos ak ay kilifa nga fay fekk ñu toog ay oto yu chic ñoo fay toog ñu lekk ba pare génn dem je crois bant yi benn bu nekk ñu koy jaayee cent franc xaw ma fukki dërëm calte gi nekk Sénégal na ci Macky Sall jóg na ci ki nga xamante ni moom mooy moom moo yor moom moo yor affaire hygiène service d'hygiène nañu jóg police nañu génn kenn du na wàll jàngoro jàngoro bi du la Sénégal jàngoro bi du lawee Sénégal salte la bëgg te dañoo salte boutique ma ma dina ñee boutique yi dugal boutique Pël Fuuta bi jaar ci boutique bi day taxaw wokkatoo wokkatoo wokkatoo wokkatoo ci biiru nopp bi moroñ moroñ moroñ moroñ moroñ moroñ moroñ moroñ ba mu maroon mu génn nii ci tubéy gi ñaata mburu nga bëgg daal lay jaay mburu nga jël dem sa yoon. ngeen ni kenn du ko wax ku wax ngeen dafa bari wax maa ngi gis léegi ku may bind naan dof gu jub laay dof laa duma la tontu léegi su ma paree laa ci suuf wala loolu dof di mel. daf bi ku sa yara dal doo ko jur daf bi ndaxaw ku yara dal du ko jur moo tax fu ma toll nit di leeral ñu naan bàyyi leeral ay wax boolewuma ak Facebook ay wax ak Facebook man j'ai fait la rajo pendant des années et des années ba ma koy def boobu rajo bareegul xale bu tuuti télé bareegul barke Serigne Saliou ba may def rajo bareegul rajo bareegul ay wax boole mag Facebook ba leen tooñ ak yàq der tol dose best ku ñu duma leen topp fa mu jëm ak yéen dafa soriwul su ma paree dinaa la jël ci suuf wax la dof nu muy mel ku sa nday yarabal doo jur dof dama pare ba ma pare ci yow déedéet danaa ko leeralal toldo bàyyil ma leeralal ko aw bi man bëgg a wax taxumaa wax mën a wax taxumaa wax facebook boolewu maa koy ay wax déggoo man la damaa jaar rajo def fa six ans animatrice bu ris baa ngi nii ki xale yi bëgg ma tagg sama bopp ndax loolu yàlla dogal su pare dinaa ko def ci sa sama continuer service d'hygiène bu Sénégal nanu jug ci boutique yi nanu jug ci jaaykatu mayga yi nanu jug ci ñi nga xamante ne nii nag ci buntu kër yi la ñuy toog di jaay ak akara beñe ak fataaya bu doon da ngay ànd akum cet mais mën a so bu fekkoon day ànd akum cet ñu ni sax set na la muy jaay mais da ngay wokkatu sa yaram ba sa loxo ñuul sa wee ñuul kukk yi wey ci biir ñuul kukk